lan la nga defar laax mu jur benn kii danga lan. eh wala bu ma fontoo laa damaa gis mbaax li nga ma fene woon naan naan naan ma yow góor nii nii. laa utiliser su ma gisee Pegou numa aqui, que você tem? É, é meio isso agora. Kan é, é. nga lay diire lii ñeenti fan lay diire moom ñu commencé nag nga xam lu ma lay xamal su jeexee maa ngi ñëwaat tas suma yaakaar Juga gi. jugal dama la soxla te dépense teel la. daa ñu mën a dépense dama Mor jour bi may lay toggal ganaar yi bi may di la laaj lan lay toggal ganaar danga maa dàq dofuma maa ngi koy xalaat bu baax li nga làqoon ci sa ginnaaw loxo bi lan la te Mor jour la sama sër ba réer Mor ma sama bi yow ko jox. ko jox. lii di wax ak yaa jël sër bi. jël. sama sër foo ko dugal. daa am ku ma ci fay xaalis bu baree bare bari ma jël sër bi jox ko. Eh, waaye ndaw Samba moor sama sëru njiit laay bi may fanaanoog yow sama bàjjen jël ko jox ma ko ma koy fanaanoog yow ci néeg moom nga jël joxe ko ndax lan xaalis. man nii maa jox maa joxe de. moor yow baa yow duñ na la sa jabar ji ndax xaalis nga ñëw rendi ma. da umpale leen rek. fu tol ni de limay dund ni buñ ma laajoon lu raw seur ma joxe ma ya yaakaar yow da ngay fàtte sama sabar yee ma wéer fee tëggatuma amatuma programme ne la ya wax yow laa nekkee ci kër gi. ba yow lu ba yow lu ñëw nga nga takk ci. xanaa ñu xool beneen sër soxna si sër boobu moom yàlla dogal na dem na. yow de fi mu ne luñ ma wax ne ma mooro ko def sa jëkkër man duma la ko Korea'ya gidelim. Nasıl böyle kendisi la? O zaman gidelim. Oy. Ben sana yanım hep demeyeceğim. Oy. Non mun a soo bële kenn gisul la coo defoo dara. am satu tey sama yaram bi benn yoon ya. moo tax wàccu ma. da nga feebar. am satu li ma Mo moo raw feebar. mo mhm. la dal. am sat sama faru rab bi démb démb daf maa seet si dëgg ci ay gént rek la ma daan ñëwal te bu ma ko laajte waan dañ naa ma lii faru rab la waaye bu moom daf ma tëddee tëddee looy wax ni am sat sama faru rab bi daa yegg sama kaw ndax bu ma duggee ci toilette yi ba génn ma xool sama bopp laa xam ne moom la léegi damaa jaaxle wóor na yàlla waaye nag jànk waaw lii la yem ci sama diggante ak yow bul ko kenn yëg maa la ko ñaan ba léegi nii lañ koy bàyyi nii rek li wóorul di yow man damaa tiit kay dinaa dem nag ci faju olof yi waxee di nga sañ dem. yow loolu kay yow laa koy wax temps yi da nga yor xaalis xanaa. man am fi am fi damay lamb da ngaa yor xaalis. Eh, temps yi bi dox na. dara doxul nag dara doxul dara. lu yi lu ma jaay mu lamb lay def lu ma jaayee lamb na. <laughs> non garaawul xam naa ak régime bu bees bi moom dina bari ay innovation ak beneen euh, méthode de liggéey incha allah. ah war de man ñu sonn nañ torop. dama jënd jën di ko jaay ñaari fan loo musul dal ak di glacé loo xam ne musuma koo def. xanaa amoo bayre nag yow tamit Ndiaye day ànd ak bayre. moom itam bëgg nañ bilaal maanaam damaa boole sëñ Modou Daraame pour mu dafa ma ay bayre waaye boobu ba léegi moom jox ma numéro bi woowu ko. Ah, dégg naa ko ay la waaw dégg naa koy mën na moom. waaye dégg naa xeex rek lay def. ah ah man du ma xeex moom xanaa du ma liggéeyal ma liggéeyal ma la may liggéey ma fay ko mu dem yoonam xanaa du ma ci dóor wala <laughs> fulla la bokk liggéey day àndat am fulla man moom laa àndal de ñi dañoo doy waar ah. nit ñi moom ah. la pare nga dafa lay la fay loolu ah nga xam ne da nga am dikkoom wala da ngay ragal tay nag da nga def leer leer nga de waaye noo mujjee sa waa ji <laughs> man nee naa la ba taay gone may dëkk waaye maga may taay loolu am na man dama ñama gone nag yow tamit nag mi ngi fii te temps yi dafa rakkeeju xam nga lu mu xewa mm. takk takk takk takk. Eh, dag may nax kon foofu. ii foo ne. man ngay waxal de. lu dëgg na mu toggantu ko. waaw na. nee naa la ba tey du ma moroomu ko de. dëgg ma bañ a bëgg. allo bébé. bi mooy bañ moo tax. ndànk yuuxu ni di tëb di daal. waa ndànk lan lan moo daan sa kañ. bàyyi ma ñëw eh na ma xa maa ngi fay dem léegi. maa eh. maa ngi ñëw yow. Eh, yow lu mu xew la. ñu lay def dugg di génn mel ni string nag du toog. waxtaanu biir ga daal waxuma la nga dem fa di xool ay direct ñoom day faatu ñoom seen xew mi programme bi dañoo mujjee changé sax date bi ah. maaleykum salaam <laughs> waay waay waay waay waay namu nañ la waay waaye na mun nañ la waaye. yéen a ngi fi kalkal bii ba léegi. wallaay wallaay wallaay wallaay. waaw ba léegi. waay waay waay. mbay mbay mbay mbay. gaari kàlla mbay. alhamdulilah maa dafa coono. macha allah alhamdulilah soxna si noo def. jaamare kay gaari Diouf laa ci wala. waaw. wala kii. Samb Diouf ah Diouf. <laughs> Dioufène la Dioufène la. alhamdulilah. waaw am nga jàmm. mbaa tardoo ma lëwal. déedéet yow da ngaa toog ca waxtu la. sant alhamdulilah. naka njaboot gi. ñu ngi ci jàmm. ci jàmm alhamdulilah ace ni dafa kii de dafa awa décollé bopp de ñoo koy gas waaw kalbu nii ba léegi ñu ngi ci kër dina jàppi sàcc waaw na ñoo jàpp sàcc ñoo ñu kere de ñoom ñoo ñu dimbale ci xar yi bi la ñuy nga heure bi la ñuy nelaw xam nga am na xaj rumbil eh, yi eh, waaw lan mooy ah, dafa am mooy xaj yi nga xamante ni comme ay gaynde xaw ma da ngaa maîtriser xaj yi de yéy yéy jaaxal na ma ok xam nga amee waaw ñoom fu ñu newati. jeunes ñi ngi euh, kii euh, Cambérène xam nga Cambérène ci ci ci kii bi. ci booy dem waaw booy dem Cambérène. ci fi ñuy defaree ndaay. ah. ca óol ba. fa la jeunes ne. wax nga dëgg fa la ñuy formé dëgg wax nga dëgg. Ah, dañ faa tabax bu wax nga dëgg ah, dañ faa bu bees. foofa la ma sa doon de. ci boori forbe. nekk mu ne. fan la GIGN masa ne. ma ne masta nekk foofu. ay bu tegal fa masa ne. ah yow GIGN yow fan nga bëgg ñu nekk fu du ca Cambérène Gueye mu wax wax nga ne ko dangay fen. ah dëgg dëgg lii kay mooy dangay fen. waa gaajo noo def waay sant waay naka liggéey boobu. sant yaay ñaa ngi ca jàmm. ñu nga ne neem rek ndeysaan da ngay ne neem rek gis nga waa mairie. waaw. lii ñu nu dénk. waaw dénk ma ko. waaw ku wayatu woon waay si ñaata yi. kii moo ko wayoon waay nday day fekk signature day fekk moo ko moo nu mu ko woyee moo moo ko woyal signature ndaka yaay bërëm dëggal daa boobu noonu farbata sekk njaay naka yaay jaxase yaa ngay jaxase nag lu ma waxul farbata njëkk balla taalo de la yaay signal ma ci loolu ëpp na loolu ëpp na loolu wallaay wallaay wallaay sama yaram daw rek loolu ca mag ña la Didn't know. Did kay? Tiital na ma kañ wooyu métti na ma pour ma gaaw ñëw dama tiit sax bi may génn mu ne pour ma ñëw xool la da nga def choc. waaw mais bon garaawul de escalier daal laa doon wàcc rek fakk salo daanu nag mu jàpp sama tànk bi. mais mi ngi tane. comme accident kañ léegi demal jël say bagage wala nga wax ma fu mu nekk sax man ma jëlal la nga ñëw ñu dem hôpital. jaru ko jaru hôpital dina sedd lii kay xam naa ni massage la soxla rek te buñ ko wee moom am naa yaakaar dina tane. waaw massage moom hôpital ñu ngi koy gën a mën en général ñoom dinañ xam nañ koy defee nañ dem rek yaay bàyyi leen buleen leen sàgganee lii tamit dafa fragile tànk la wóorul nañ dem. Ah, je te jure da ngay ñëw nii rek jël frotté bi nii massel ma ko ci rek dina bàyyi boo defee rek mu tane. Nasıl? Nasıl? kii yaale fii ba ci kaw. Hmm? parce que doo maase waale ba ci kaw ci genou bi. te dañoo ñu yegg si biir. ci pour la. xam wax ju yegg dafa moom li ngay def ni dara ñoruma ci. xabar yi dee ngeen ne wéere. Ah. amut dara amut. ñuy ngot ngote rek. ay réew mi ngot ngote rek dara doxul. ay réew tànn beer amatut maa ngi yuy wéere di. parce que néew ñëwul ñu lay xaar xam naa téléphone bàyyi sonné. denc bàyyi néew am heure. day nag. waroon di absenté lu bëri. ataay ji nag da cee war a gaaw nag fu mu toll nii. <laughs> waaw waaw waaw. <laughs> dëgg la. waaye foog mu ñor. Senghor. Senghor xanaa ne ataay bu ñorul day mel. mant la de naanaa a mant. jërëjëf jërëjëf ah eh, Mbaye yàlla ñëw na de nga ni yàlla de ñëw na te moo gaaw ci póotum buur de yàlla kii di ma de ab hmm? saltige bu mag la du wax hmm? nag dëkk bi ñu cosaanoo saltige bu mag sax sabar la may utloo sabar sabar la soxla pour bëgg ko tëgg ci dëgg njolloor def ay yëfam ñu ko koy tëggal dal manam ñu ko tëggal programme det soxlul programme soxlul ñu ko tëggal da ko bëgg jëlal bopam mom mom ko pour diko ko te dëgg njolloor la ko bëgg a ñoñu dañu misik ah waaw ñoo misik de seen mbir dafa doy war ah waaw ñu dé seen mbir mom yéme na lool a ah, légui nak amoo sabar yu jaay ah loolu kay yom na la jënd sabar mom mëna naa dem ci lawbe ga ñu yatal ma déedéet ma daal di fo déedéet loolu taxu ko jóg de sabar bu paree ba normal bi ngay tëgg programme bi nit ñi di tëgg programme bu lépp nekk ca booba la soxla loolu kay dafa gaaw da ko soxla rapidement du lu muy forme du lu muy wàcc na daanoo ci waaye kat yaa ngi dégg kii moom dégg naa ko wallaay ah <laughs> mi toll loolu moom boo amee sabar eh, eh, eh, day fay de day fay prix de lii mu wax ci bi day fay bu doon man dama jaay ko ah man de gaajo dëgg dëgg du ma la ko dama ne ko sabar yaa ngee wéere waaw waaye saltige yi de seen mbir de dafa dafa dafa yéeme. déedéet loolu moom yow loolu sa yoon nekku dafa yéeme. dañuy jënd jaay leen boo ko mënee luwewuñu nag ndax ñoo koy moom def ci liñ ci bëgg a def. non sabari jaayal ku <laughs> sabari teel ci laay ci laay def sama programme. mënu man de li ma wax bu doon man ma jaay ko ndax fanweeri junni la lan la koy jëndee. fanweeri junni benn ni fanweeri junni cent cinquante mille. waaw <laughs> fanweeri junni ak ay sabari lay jëli. sabari lay jëli sabari jaay. xujja sabar yi nga xam ne ci maamam la ko doonee. gis nga xujja naa la ma doon ne maam tan maam amalu la njariñ saas a ah. ah, mi ngi nii waay. yi ngay gis ni toj na fu ne. mi ngi mooy gor. fu ne yëngal na fa. fu ne. acca bokk. amul yow warga bi fu mu toll yow. warga bi léegi man dama ne ndax lii da nga koy jaay. waaye yow Mbaye lii bu ko jaayee lu muy def. bu yàggee ci yow la des de. man noppi naa de. Mor Mbaye. nañu dem ma présenté la ko ma woo ko lii baax na ñu déggoo ci kanam. ma néew wuy ma li ma néewee ca morgue ba yow de yàlla na nga tëgg sabar bi nah. nah, rek tëgg sabar yi sa loxo abal santi sabaru digg ba ci lu ne di ko fi gis zaman lañ nekk nit ñi moom xaalis jaral na leen lu ne tëgg sabar bëccëg ci saltig moom loo ko ndeysaan boo génnee rek dafa ma ñor te ni <laughs> yow rek yaa ma ci doy sama yaram moo am lu muy laaj nañ yegg si biir. mais yaay booy man mënumaa nekk ak sa doom ba pare di nekk ak yow te yow sax da nga am jëkkër. premièrement baatu yaay bi est-ce que mën nga ko teggi baatu yaay bi mën na dañ parce que man duma sa yaay juruma la bi ci topp mooy sama doom ji nga nekkal ñaata yoon nga ko séq ak moom. nafi musuma se ka mun dara musuma xam lu nafi wordoo wax ma leneen wala da nga koy sàng sutura réew mi dafa tollatul foofu de ban xale bu góor mooy nekk ak jigéen pendant des mois te du ko laaj boppam xam nu mel wax ma leneen xanaa doo ma ne xamoon na fi nu mel. na fi du genre boobu moo tax musuma ko seeg moom. bref beneen bi mooy. dama am jëkkër dëgg la mais sama jëkkër li ma soxla su fekkoon bi ma koy jox kon duma am soxla ci yow waaye ñaari yoon ci weer bi kese la may jox te matul mënul neexul sama yaram nag xam naa ne instant bi li muy laaj yow rek yaa ci mën dara kañ dem nga wokkal ma ko dama lay teral jox la xaalis bu bari nag